fal ak njabootu Cheikh Ibra gépp di wax ne nag kiñ ko tudde muy maam Seynabou njaay day koo xamante ne bii jàmbaar la woon joo xam da doon roy soxna jaara ci lépp ndax ma leeral fii loo xam ne am nañu fi teew xëy na umpale nañ ko moom maam Seynabou Ndiaye tërbiya na Serigne Touba loolu njaareem la xewe mag ñi ko fekke nag ñoo ma ko nettali ndax lépp Cheikh Ibra Fall ci kanamam la ndax maam Seynabou njaay njare wàq la dëkk yàlla dogal na Serigne Balla Fagey Ndiaye moo ko jur ak maam Soxna Balla Ndiaye 1837 wala 38 la gane jamono kër baayam daara la woon mag ñi nee nañ bu maam Ahmadou Far Roqeya masaana ñëw ci kër gi dara ko daan fekk mu daan awu baayam ci daara ji mu taawloo maam Cheikh Ibrahima Fall teg ca Serigne Saliou Fall teg ca jigéen yàlla dogal na bi maam Ahmadou Fall Roqeya nelawee mii way juru Cheikh Ibrahima Fall ñu jël maam Seynabou Ndiaye jox ko maam Issa Alima Diop ca Belel Diop. mu am ca maam Astou Diop mooy caat ma maam Astou Diop moom bi matee dem kër Serigne Darou Assane Ndiaye lañ ko joxoon mu am ca Serigne Ousmane Ndiaye Serigne Modou Ndiaye Astou Serigne Ibra Astou Ndiaye caatloo soxna bu sa Ndiaye soxna bu sa Ndiaye lañ joxoon Serigne Balla Coro mu taawloo Serigne Abdou Mbacke Mbar teg ca Serigne Baye Mbacke jaaxal kon ay bokkam rek a teew fii maam bu njaay nag bi maam Cheikh ñëwee njaareem dafa jëli ndayam soxna bu Ndiaye indi ko waaye soxna la woon soo xam ne keroog bi Cheikh Ibra Fall gënee jamono li mu jëkk a wax ca njaareem mooy indi naa mbër ci làmb ji xaw fu muy bàkkoo waaye indi nambar ci làmb ji waaye defe naa ñi toog fii ñëpp mën nañoo seere ne Cheikh Fall bàkk na ba baat na bépp dégg maam Seyni bu Njaay nag ñëw njaareem Cheikh Ibra dakk dëkkal ko ci biir këram Baye Abdou Niang moo ma ne su masaane xëyee ci kër Cheikh day dem ci ku tedd ki di ko baleel kër gi ak di root ndaa yi jël yére ku tedd ki indi ko ci kër gi di ko fóot maam Astou Diop nee na ñoom ñaar bokk nañ sumb yére ku baax ki ci biir kër maam Cheikh Ibrahima Fall fóot ko ba noppi delloowaat ko kër njaareem am na bis nag Serigne Touba Cheikhul Khadim mas na koo wax ne ko yomal xiyaam suñ la dee woo ca kuréel ga nan ngay xam ne yow la ñuy woo mën a teg borom Touba ne ko yomal xiyaam diw amu fa doomi diw amu fa ana ki daan jëf nangam rek la ñuy wootee nan ngay xam ne ëllëg yow la ñuy woo. ronga ñuy sottiku sëriñ Touba ne ko kër boo déggee ëllëg ñu ne ana ndey kii xettali jaam ñi jógal wujju xam ne yow la ñuy woo moo tax sëñ Moussa Ka ne ko saw ŋàññ rot nga yaa taxi jaaraam ndey sëy na njaay li soxna jaare yor di jaay yaa ko mosal waa njare njaay saw ŋàññ rot na yaa taxe mooy maam sëy na bu njaay mi nga xam ne mooy ndey Cheikh Ibrahima Fall ba bi muridina ñu dipp ko bis bi tey muy jàmbaari koo xamante ni bii lu ne liggéey na ko yoon wi lu mu mas a dajale jox na ko maam Cheikh Ibrahima Fall na ko yutal sa sang bu ba mi ngi gàtt mi ngi wàcc liggéey 1922 la ñu taarix wax ci njaareem Cheikh Ibra sarexalu ko xuru Mbàkke ñu gën ñu denc ko guy texe gii guy texe gii fii ci barab yi ci armeel yi borom ba barab maam Cheikh Ibrahima Fall maam Seyni bu Njaay nga ci biir fe ko denc te menn moom it lañ xam ci soxna soo xamante ne bii wéyjuru Cheikh Ibrahima Fall mooy ñi toppoon sëriñ bi maam Seyni mu Njaay maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ci xam ku waajuram dëkk nekk ci biir armeel yi du mën a keneen amul de waaye moom laa xam mi ngi fii ñu denc ci biir armeel yi Touba yi waaye jàmbaar gi mu wane woon ci biir biir maam Ahmadou Fall Rokhaya tax na ñëpp xam nañ ne maam Seyni mu Njaay jigéen la woon joo xamante ne bii liggéey na ci biir kër gi liggéey bu rëy boo xam ni lépp lu soxna jaara daan def ci Maam Mor Anta Sali daan ko royee ci moom moo tax bi jël bis bi delloowaat ko maam Seyni bu Njaay ngir ay jikkoom ñu roy ko ci moom ndax lu ne dégg na ko ca njare Seynabou Ndiaye ba sëñ ba Cheikh Ibra Fall demee ci sëñ Touba Cheikhul Khadim mm. ca Mbàkke Kajoor mm-hmm. njare gépp àndandoo nañ naan Seynabou Ndiaye di jaaxal nañu nee nañ am na ngërëmal yàlla am ngërëmal borom këram te jur na ñaari ponkal kenn ki dem ba doon waxambaane dof muy Cheikh Ibra Fall ki ci des lu muy Maam Saliou Fall kon Seynabou Ndiaye ngërëmam yàllaam lii mu liggéey ci njare fu mu ko jaar te booba li ko sabab mooy la maam Cheikh Rafal bàyyi léppam topp sëñ Touba ñu ne Rafal Bamba ji na xamuñu woon topp nit di ko liggéeyal liñ xamoon mooy topp nit mu lay jàngal waaye ne ci nit di ko liggéeyal guddeeg bëccëg bàyyi say bokk ci maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ko njëkk gisee ñu ne njare gépp naan Seydou bu Ndiaye daa Bamba ji ah, Ibra Fall daa Bamba ji Ibra Fall daa Bamba ji Seydou bu Ndiaye daal ngërëmam yàllaam lii ñuy wax am na ko ci kër borom këram fu mu ko jaar ndax ñaari ponkal yi mu am kenn ki dof na ki ci des luu na kon ngërëmam yàllaam fu mu ko jaar waaye maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina mi nga xam ne yàlla fayee na ko loo xamante ne bii liggéey la Serigne Touba loo xam ne tey ndeyam ji ñu dippe bis bii te te muy bisub soxna jaara feeñ na tey waaye liggéey bu tedd bi mu liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim ndax Cheikh Ibra nag Cheikh Ibra Fall nag hmm. sëñ Touba waxal boppam ne hmm. Ibra Fall dafa ma rëcc fa ma ko sànni ba fa xaye koon ba yow ma koy am dolal suuf loolu feeñ na tey jii Cheikh Abdou sant nañ la bu baax te gërëm nañ la Serigne Cheikh jëm mi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal ci sa barkeb maam ndax yow da ngaa bëgg Cheikh Ibra sa wajuroo bëgg Cheikh Ibra Fall sa maam ju baax di bëgg Cheikh Ibrahima Fall waxtu wañu ko du may waaye Cheikh Abdou Lahad ne seede na ko ci Cheikh Ibra Fall Cheikh Mourtalaam Cheikh Abdou mii ak Baye Fall lay xam ci yow yàlla na yàgg ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall sant nañ ñëpp di santaat bu baax sunu Baye Mourou Mbaye sàmm di ñaan yàlla nga yàgg loolu tamit soldaar léegi nag mbooloo mi na ñëpp toog noo ngi jox nag kàddu